أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بأي شيء نستقبل الرمضان وبأي عدة نتجهز للرمضان أبشراء أنواع العصائر والمشروبات أبي التوفير أصناف المأكولات أبي التجهيز المطابخ والصالات الطعام بأخذ إجازة من العمل وتفرغ للنوم أحبتي في الله ما هي الطرق السليمة لاستقبال هذا الصهر العظيم بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk julit yi naka la nuy waajalee weeru koor ci yan mbir ak ci yan anam la ñuy waajalee weer woowu di weeru koor naka lañ koy teeroo ci yan wàccaay lañ koy waajale ndax di organiser ay façon lekk ak ay jus ak ay naan noonu la ñuy waajale weeru koor planifier yan lekk façon yan plat moo gën a neex yu may xëddeeg yu may ndogoo yan naan moo gën a neex moo gën a sedd yu may ndogoog yu may xëdd ndax loolu la ñuy waajale weeru koor yan façon lekk abit tawfiiri asnaafil maakulaat ay xeetu lekk yu nit di préparé ci ndogoo xëdd ak reer ndax noonu la ñuy waajalee weeru koor ay façon plat ay façon table ay façon coupe ay façon carafe ay façon kuddu ay façon ay façon ay façon ci ay ndab ndax loolu la ñuy waajalee weeru koor wala ndax damay jël congé ndax damay jël fête ndax damay génn sorti noonu la ñuy waajale weeru koor weeru koor gaa ngi ñëw foog ma jël congé dootuma liggéey ndax ma mën a nelaw ndax ma mën a ndax noonu la ñuy waajale weeru koor xam ngeen ne waxtu wi nu nekk marchandise yeeg bagage yëpp sotteeku na foo romb carafe bi de mën naa def bisaab bu xonk foo romb damay jaay glace nañ jënd frigo bu bees foo romb loolu rek ngay dégg dëkk bi loolu mooy nun ni nuy waajale weeru koor mooy ci anami lekk ki naana ki ndaba ki bagage waaye mbokki jullit yi xoolal ki nga xam ne moom ni muy waajale weeru koor mooy dem jënd climatiseur bu bees sax dem jënd lal bu ànd ak mat la bu nooy ñëw xool fenn fu muy aménager fii moom bër coow du fi bëri fii moom bu ma ko fi calee 24 heures sur 24 dinaa mën dinaa mën a dóor nelaw yu xóot yu tàng jër xoolal kooku nga xam ne moom jàpp na ne noonu la ñuy waajale weeru koor doomu ndey yi mbokk jullit yi kon maa hiya turuq as-salima li istiqbaali hadha sahri al-azim ana yan yoon ana yan mbir moo gën a mucc ci ab jullit nu muy teeroo weeru koor nu mu koy waajalee ayuha al ahbab yambagi lil muslim an la yafruta fi mawasimi taat wa an yakuna min alsabiqina ilayha wa min almutanafisina fiha qala taala wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun wa qala alhabibu almustafa صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وصلوا الله أن يست أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم mbokk jullit yi li war ci jullit mooy mu bañ a neenal waxtu yi ñu jëm nga xam ne waxtu yiw laak tiyaaba jullit bi fexe bokk ci ñooñu nga xam ne dañuy njëkkante ndax am ay tiyaaba ndax am ngërëmal yàlla ndax am kontante yàlla tabaraka wa taala xam ngeen ne Muusa bi ko yàlla waxee àndal ak banu Israil ngeen ñëw waa banu Israil di yéex moom daf leen dafa ñukku dem bi ko yàlla ne lu tax nga dem ba leen fa mu ne yàlla dama yàkkamti ñëw ci yow wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda yàlla dama yàkkamti ñëw ndax nga kontaan ci man noonu la ab julit war a def fëx daw waajal weer wi ndax yàlla gërëm ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ngalawaayu weer wi su ngeen ko fekkee def leen ci aw yiw seen jamono yépp góorgóoru leen ngeen jëf yiw ngeen def lu baax gaaral leen seen bopp yërmande yàlla wi sotteeku weeru koor weer la woo xam ne bu doon kër la buntu yeeg fenêtre yépp day sotti yiw yërmande kon yéen jullit yi gaaral leen seen bopp yiw ak tiyaaba fexe leen ngeen am yërmande yàlla yërmande yàlla day sotteeku ci weer wi yàlla di ko defal ñu ko neex ci ay jaamam ñaan leen yàlla mu suturaal leen muur seeni awra fexe leen yàlla mu dalal seeni fit fexe leen yàlla ñaan leen ko mu suturaal leen fexe leen yàlla mu may leen aw ak dal mu dalal seeni jëmm mbokk jullit yi nastaqbilu ramadan bi ashya'in minha awalan addu'a bi an yuballigaka allahu shahra ramadan qala sallallahu alayhi wa sallam addu'a huwa al ibada mbokk yi ñun ñëpp a war a waajal weeru koor waaye nan lan ko war a waajale lu njëkk ki bëgg a fekke weeru koor bëgg koo jëriñu li muy njëkk a def mooy ñaan yal na ma yàlla may ma fekke weer wi yal na ma yàlla may ma tal weer wi yal na ma yàlla may ma jëriñoo weer wi yal na ma yàlla may ma jaamu ko ci weer wi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ñaan mooy jaamu yàlla addu'a huwa al ibada yàlla nee na bu ngeen ma dul woon ñaan duma leen faale maa yaba'u bikum rabbi lawla du'aukum addu'a muqul ibada addu'a silahul mu'min ñaan mooy yuq jaamu yàlla ñaan mooy ngànnaayu ab jullit yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ñaan mooy jaamu yàlla ab jullit na soxlawu yàlla di ko ñaan di ko tàllal ay loxoom yàlla nee na su ngeen ma ñaanul dama leen di mere te ku dul yàlla boo koy ñaan gudde ak bëccëg da lay mere yàlla boo ko dul ñaan gudde ak bëccëg la lay mere wa rabbi in tarakta su'alahu yaghdabu wa bani aadama hiina yus'alu yaghdabu doomu aadama boo koy wax bis mu nekk may ma may ma may ma da lay sib da lay bañ amma yàlla boo ko dul wax bis bu nekk may ma te la lay sib mbokk yi wa kaana salafu saalih yad'uuna allaha an yuballigahum ramadan summa yad'uunahu an yataqabbalahu minhum ñoo ñu naan mag ñu baax ña sahaba yaag ña topp ci ñoom ñooñu dey dañ doon ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may leen ñu fekke weeru koor waaye mu may leen buñ ci jaamoo yàlla yàlla nangul leen ko yal na nu yàlla may nu fekke weeru koor loolu lan doon wax ñoom su leen yàlla maye ba ñu fekke ko ñu ñaanaat ko lañu ciy def cay jaamu yàlla yal na leen yàlla may nangul leen ko iza balaga ramadan wa ra'ayta al-hilal taqulu kama qala rasul sallallahu alayhi wa sallam idha ra'a al-hilal qala allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamata wal islam rabbi wa rabbuka allah yow sama mbokk jullit bu la yàlla maya nga fekke weer wi nga fekke bis bu njëkk bu ñuy séentu weer wi nga bokk ci ñi yàlla xéewale la ñu gis weer wi nga lawaay ñaanal ñaan ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ñaan su ko yàlla wonee weer daana wax allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imani was salamata wal islami rabbi wa rabbuka allah yow sama boroom maa ngi lay ñaan weer wi nga teral nu ko ci ay xéewal ak ngëm ak jàmm ak dundu lislaam sama borom de yi mooy boroomu weer wi loolu mooy benn ci nu ñuy waajale weeru koor mooy ñaan ñaareel bi mooy alhamdu wa shukuru ala buluugi nanu sant yàlla delloo ko njukkal tagg ko bàkk ko kañ ko ñun ñi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala dana nu may nu fekke weeru koor képp ku fekke weeru koor war nga sant yàlla war nga kaa delloo njukkal war nga kaa gërëm lu tax al imaamu nawawi rahimahullah nee na fi kitaabihi al azkar i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu nicma zahira aw in dafaat anhu niqma zahira an yasjuda shukran lillah imaamu nawawi nee na képp koo xam ne yàlla may na la xéewal goo xam ne daf koo beesalaat ci yow da ngaa fekke woon weeru koor daaw yàlla ma yàlla nga fekke ko loolu xéewal gu réy la wala koo xam ne yàlla dafa dindi ci yow ak natt gum la natt woon ren gii la loolu dellu siwaat dalu la ñaara fi nekk yàlla dalaa mayoon xéewal nga fekke waat xéewal gi yàlla dalaa nattu woon at bi ñëwaat nattu boobu dalu la nee na kooku war na ci moom mu sujjóot sant yàlla kooku war na ci moom mu tagg yàlla tabaraka wa taala fa kam min rajulin kaana yusalli bi janibika fi lqiyaami alaami almaadi wa huwa alaana yarqudu fi turaab yanzuru daawata alsaliha walaw qiila lahu tamanna la qaala saatun min arramadan idan ayuha al ahbab idan ayuha al habib fa kun anta huwa mbokk julit yi nun ni toog tey ci jumaa ji frenkolaayu jublu penku nun ñi ñëpp toog yàlla may nu xéewal ñu julli si jumaa mbokki julit yi ci ñun fii ndax amul nu dendaloon ak ñun daaw te nekk ñu fi ci jumaa ji ren aka ñu ma bëri ñu ma xam ñu doon julli ci jumaa ji weeru koor daa woorandoo na noog man tey nekk nu fii ñooñu tey anañu ña nga ca bàmmeel ya di xaar nu ñaanal leen ñaan la ñuy xaar ñaan yal na yàlla yeesal yërmandeem ci seen kaw yal na yàlla yërëm leen jëggal leen ñaata mbokk yi ci biir ak ci biti ci kaw ci góor ñi ak jigéen ñi ñu ñu xam ñu doon nekkandoo fii ak ñun ñooñu nekk nu fi ren fu nu nekk ña nga ca bàmmeel ya tëdd lu ñuy xaar tàndarma bu ñu ndogoo déedéet lu ñuy xaar mburu munu xëdde déedéet lu ñuy xaar ñaan tey ñooñu buñ leen fekkoon ci bàmmeel yi ne leen lu ngeen bëgg dane na yàlla bàyyi lu ñu dem woor ngallawaayu noonu bu ñooñu bu ñu amul loolu ñun nan ko am nañ nekk ñooñu loolu mooy ñaareel bi ñuy waajale weeru koor mooy sant yàlla ñetteel mooy alfarah wal ibtihaj mbokk yi danoo war a bég nag sunu dundee ba yàlla may nu fekk weeru koor danoo war a bég danoo war a kontaan lu tax ndax kat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na moom yonent bi kaana yubassiru asaabahu bi majii shahri ramadan fa yaqulu jaakum shahru ramadan shahrun mubaraka kataba allahu alaykum siyamahu fihi tuftahu ababul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim akhrajahu ahmad weeru koor su ab julit fekkee dafa war a kontaan ab julit warul ñëkkal kanamam warul lëndamal kanamam léeg-léeg nga gis ay nit di kaf ay nit di fo lan la ñuy foowee diine yàlla nga gis ci théâtre yi sax dañ ñu koy defal nga gis waa ji ne waa yow weeru koor kañ la ñu ne des na juróomi fan nga dégg mu naan chuut non nga ne lu ci des non vraiment lii lii garaaw na kon dinañ war ni ah chaque jour nga koy gis ci dëkk bi loolu du yëfub jullit kañ ci ñun lañ naan weer wi wala bis bi place sàngam bi wala lii boo ko defee da ngay am xaalis bu bëri ngay mer foofu naan see tëtëtëtët kan ci ñun loo xam ne bu ñëwee tiyaaba ngay am yàlla da lay defal jàmm soril la seytaane ubbil la buntu aljanna tëj buntu safara nga nekk ci yiw loolu kay dëgg-dëgg ab julit war na kontaan omar ibnul xataab radiyallahu anhu arda gis na benn waay di dox sëggal bopp bi teg loxo yi ci dënn bi di dee deelu Omar ne ko saawaay lan la mu ne ko dama woor Omar ne ko ragal yàlla nekkul ci sëggal bopp nekkul ci tog sa loxo dënn di dee deelu ragal yàlla mu ngi ci xol yi ragal yàlla nekk ci yére yi naka la ab julit di wooree tëdd di nelaw soo waxee dama woor naka la ab julit di wooree lëndëmal kanamam du sangu du peñewu du socce soo ko ne ya axi ma hada wallahi ana saim ya axi ana saim ana taaban kayfa yakuna zalik naka la ab julit di mele noonu yonent bi alayhi salatu wasalaam da daan bégal sahaaba yi da daan leen kontaan loo ne leen kontaan leen kaana yubashiru ashaabahu da leen di wax bég leen kontaan leen ñëw na weer woo xam ne ci la ñuy ubbi buntu aljanna yi tëj buntu safara wa kaana salafuna salih min alsahaba wa tabiina lahum bi ihsan yahtammuuna bi shahri ramadan wa yafrahuuna bi qudumi sahabatul kiram ak ña leen toppoon ñooñu day dañoo yitte woon weeru koor waaye dañ daan bég ci koor bi dikk bi mu dikk dikk bu muy dikk ndax lan saison la weeru promotion la benn tiyaaba boo doon am yàlla daf koy doublé julli goo doon julli dañ koy doublé jàng alxuraan boo doon jàng dañ koy doublé koor goo doon woor dañ koy doublé lépp loo doon def ci lu baax sarax yi dañ koy doublé lépp dañ koy doublé tiyaaba yi du jeex kon nag mbokk julli yi nanu fexe ñu xam ne weeru jaamu yàlla la du weeru tappale du weeru def bakkaar du weer woo xam ne da nga koy def ngir ngir sàmba wala ngir demba kër gi kat wax dëgg yàlla man kenn maa fi nekk moom mënumaa bañ a woor comme ñëpp dañuy woor xale yi dañuy woor sax naa góor-góor rek naa ko jéngu jaamu yàlla du lu ñuy jéngu nañ jéngu weer wi rek 30 jours la soo jéngoo loo ci am rubba saaimin fa laysa lahu min siyaamihi illa al atash wal juu bëri na ku woor ba ngoon doo ci jëlee lu dul xiif ak mar lu ko waral ndax da ngaa jéngu déedéet da ngay woor ngir yàlla xiif ak mar ngir yàlla mbokk yi ñeenteel bi ci nu ñuy waajale weeru koor mooy aqdul azmi assaadiq ala igtinaami wa imarati awqaatih bil a'maali saalih faman sadaqa allahu sadaqa wa a'aanahu ala ttaa'a wa yassarahu subulul xayr qaala allahu ta'ala walaw sadaqu allaha lakaana xayran lahum فالصحابي الذي بايع النبي على أن يضرب السهم بالسهم من هنا فيخرج من هنا فصدق الله فصدقه فكن صادق مع الله ñeenteel bi ci li ñuy waajale weeru koor mooy jël décision am pas-pas bu wér dogu dogu gu dëggu ci ne man dinaa jëriñoo weeru koor da ngay dogu jël décision bu doon course la nga jël décision ne maay jël paie su doon match la nga jël décision ne ñun ñooy gagné waaw même fii sax da ngay gis mbër muy bëre ji maay daan ah noonu ngay def da ngay jël décision ferme ne dinaa jaamu yàlla ci weer wi dinaa dëggu danaa jëriñoo weer wi danaa ko dundal danaa dundal guddi yi ak bëccëg yi waaye ci lan nga koy dundalee jaamu yàlla képp ku dëggal yàlla yàlla dëggal ko yàlla dimbali ko mu topp ko yàlla yombalal ko loolu ba mu yomb kenn ku ñun ci ñun fii toog boo jëlee décision ferme ne di nga jaamu yàlla di nga dundal weer wi wallahi yàlla dina la dimbali borom bi tabaraka wa taala nee na ci alquran ci suratu muhammad aya 21 mu ne walaw sadaqu llaha la kaana xayran lahum bu nu dëggaloon yàlla mooy nekk yiw pour ñoom nit na dëggal yàlla ci moom li ngay def na nga ko def ngir yàlla mooy mu nekk mu dëggu yàlla may la tiyaaba sahaaba bi nga xam ne moo jaayante woon ak yonent bi ñëw dugg ci lislaam ñuy séddale alal ji mu fekke ko ñuy joxe di joxe ba yegsi ci moom ne ko sa waay lii yaa ko moom sa wàll la mu ne pour lan la ñu ne ko yaa ko moom mu ne lii indiwuma ci lislaam ñu ne ko lu la indi mu ne xeej dugg fii génn fii ma dugg aljanna ba mu demee xeej dugg fii génn fii yonent bi ne dafa dëggal yàlla yàlla dëggal ko aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu din walaw kariha alkafirun ibadallah خامسا العلم والفقه بأحكام رمضان فيجب على المؤمن أن يعبد الله على علم mbokk yi juróomeel ci ni ñuy waajale weeru koor mooy jàng fexe ba am xam-xam fexe ba am xam-xam jàng ci weer wi lan moo koy defar lan moo koy yàq naka laay def ba jaamu yàlla yi yàlla nangu ko ana ban jaamu yàlla la yàlla gën a bëgg ci weer wi ab jullit su benn jaamu yàlla jotee dafa war a am ci jaamu yàlla boobu ab xam-xam doo toog rek yaccaaral tey buñ nee weer wi promotion am na nangam bi nangam la da ngay gis ku xamul nuñ koy defee su jëndee carte ba pare nu muy def day ñëw ñëwaat sa waay yow mbir mi nuñ koy defee ñu koy won yenn saa yi di nga gis ko mu jaral ko jënd big ut feuille naka lañ koy wanee lii pour beneen yoon dootu ko laajati keneen est-ce que ñun ñu ngi def loolu tey kenn ci ñun buñ ko waxoon nangam ak nangam bi boo ko defee sa compte bi xaas bi dina yokk wallahi dinañ ko def nangam ak nangam bi boo ko defoon di nga am nangam wallahi danañ ko def kon jaadu na ci ñun ci weer wii ñu jàng ñu gëstu ñu laaj borom xam-xam yi naka la ñuy def ba sunu koor wér naka la ñuy def ba yàlla nangu sunu jaamu mbokk julit yi fa yanbagi lil muslim an yataallama masaila sawm wa ahkaamih qabla majiih li yakuna sawmahu sahih maqbulan inda allahi taala fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun wala tansa annasa salasa alim wa mutaallim wa haalik fa anta min ayi sinfin mbokk yi war nab julit mu jàng ay masala ci weeru koor ay atte ci weeru koor balaa weeru koor di ñëw fi ñuy fi ñuy xëdde ba fi ñuy bàyyee fan la yem ñaata heure minute la war a doon parce que dañuy jaawale heure noddu salaatu ak arrêté xëdd dem rek maa ngi gis ab borom xam-xam ci Facebook bi di wax ne bokkul ci teggin ak yiiw ak xam diine ngay xëdd ba ñuy noddu salaat nga téye ab kaas naan waxaguñu mi na nëw mi ab sénégalais noonu lay def day lekk di lekk di lekk ba bilaal bi commencé nodd allahu akbar allahu akbar ñu naan ko ñu ngi noddu de mun a waxaguñu mi na nëw mi di lekk rek ba kañ loolu ab jullit du ko def nga jàng xam loolu fan la xëdd war a yem nga jàng xam dog fan la dog ak noddu timis tamit du benn nga jàng xam lan mooy koor lu tax nga bàyyi lekk lu tax nga bàyyi naan lan loo xam ne bu la gaaree sa koor day yàqu nga xam loolu mbokk jullit yi war na jullit su xamul mu làcce yàlla nee na bu ngeen xamul làcce leen fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamuun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi ñett lañ aalimun wa mutaallim wa haalik boroom xam-xam ak kuy jàng ak ku alku ñett ñi mbokk yi ñun ñi nekk ci jumaa jëpp ci fan lañ bokk boroom xam-xam kuy jàng ak ku alku ñun ñii ñëpp ci jëm jumaa ji góor ak jigéen mag ak ndaw ci suba ak ci kaw ñetti groupe yii fan lañ ci bokk ku nekk xoolal sa bopp yaa koy tontu sadisan alayna an nastaqbilahu bil azmi ala tarki al asam wa sayiat war nañ jël juróom benneel décision dogu bàyyi ay bakkaar bàyyi ay bakkaar démb ci guddi dama dajeek benn waay mu nuyu ma ma ne ko yow de xàmme naa la mu ne ma ci télévision bi man maay def weeru koor ndogu yi ma ne ko kon de yow war ngaa ragal yàlla nga bàyyi julli ñi bu ñu wooree ba ngoon bu ñuy ñaan pour yàlla baal leen nga leen di reetaan loo mu daa mu daa di continuer tey looloo fi nekk fi mu nekk nii te waa ji lu doy waar mooy dañ ko daggaloon billet mu génn Sénégal pour jouer ji théâtre boobu pour yéen du ngeen am tiyaaba tey ji préparé nañ tiyaaba yi télévision bakkaar yi télévision yëpp def nañ ay ay épisode cinq minutes yoo xamante ne yéen bu ngeen woora ba ngoon li yonent bi naan ndeysaan li saaimi daawatun laa yurd ku woor ba ngoon booy dog yàlla di la may xoolal foofu nga war a dogee nga war a ñaan yàlla may la nga toog di seetaan ab siyaatar ndeysaan di ree rek ñuy jalgati diine ngay ree jamono boobu nga koy seetaan yonent bi nee na yaag ñoom yéen a yem fa anta minhum képp kuy fekke ñuy jalgati diine di xas islam di reetaan nga gis ay paa yoo xamante ne ay meer ay jigéen ak i góor yoo xamante ne amuñu kersa amuñu amuñu ngor amuñu jom amuñu diine di def ay sketch di xas islam nga toog di ree fa anta minhum am leen fulla ci kër yi am leen fulla ci njaboot gi nañu am décision ferme yàlla ak yonent ñoo gën a yay ci ñun kontaante ak sunuy soxna ak sunuy njaboot tey gis koo xam ne ah non mun munu lu ma waa kër gi dara fekk boo fayee télé bi xale yi dañuy mer kër gi soxna si am na ñoo xam ne jàpp nañ ne bu ñu fayee télé bi du ñu ndogu li doy waar tey mooy kër yi jigéen ñee ko yor kër yi gi jigéen ñee kilifa yi looloo ñoo tax ñu am problème loolu kese la waaw yow fële ngay toog rek sa néeg bañ ne la eh sa kaasu café ngi nii nga doog a ndogu sa yoon ci télé bi sa yoon ci kër gi sa yoon ci kuy woor sa yoon ci ku dul woor sa yoon ci musique bi sa yoon ci association mbaxal bi ci biir kër gi sa yoon du ci nekk waaw am na ñoo xam ne fi mu nekk ni commencé nañ ut ay tarixa man ci tarixa sàngam laa nekk du ma woor ban tarixa moom la moo nekk ci islam ñu ne borom tarixa boobu wala tarixa boobu ku ci nekk doo woor ban tarixa la loolu ban tarixa la loolu ban yoon la ban yoon moo bokk ci islam boo xam ne xamul koor ban la lu dul tappale ak ñàkk a gëm yàlla tabaraka wa taala buur bu tol ne yàlla ne ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun nga naan man mënumaa woor parce que ci diw laa bokk diw daawul woor ñun foofu la nu bokk foofu ku fa bokk doo julli doo woor doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo fuñ jëm ab jullit day bëgg yàlla ab jullit day bëgg alquran ab jullit day bëgg sayduna muhammad ab jullit day bëgg jaamu yàlla ndax yàlla gërëm ko ndax yàlla kontaan ci moom ndax ëllëg bu faatoo yàlla ne ko yaa ayyatuha nafsul mutmainna yàlla woo ko ne ko yow bakkan bu teey bi dellusil ci man duggal ci jaami yàlla yi ëllëg ma dugal la aljanna ab julit noonu lay mel ixwatal iman foog ñu am dogu bàyyi ay bakkaar foog ñu tuub wa tawbatu sadiq min jamii zunub nañu tuub bakkaar yi yàlla may nanu ndeysaan am na nu temps mën na noo tuub sunuy bakkaar bala nuy dee dajeeg sunu borom Sufyaanu Sawri rahimahullah dafa am ku faatu ci dëkk bi ñu yóbbu ko ci armeel yi gas ba mu xóot mu ne may leen ma ñu may ko mu ne kii su dekki wan lu muy def gaa yi ne dina julli de dina woor dina jàng alquran dina zikr dina dina dina dina mu ne ndax mën a dina ko ñu ne ko déedéet mu ne yéen ñu ko mën lool bu mu leen raw wallahi mbokk yi ab doomu aadama bu jaamul yàlla ba mu faatu ñu génne ko këram dugal ko ci morgue bi sang ko sang ko jullee ko yóbbu ko ci armeel yi gas ba mu xóot nit ñi dugal ko fa ñibbi wallahi mu rëcc lu mu doon def ci àdduna te war nañu xam ne àdduna bi du topp lépp luñ fiy def ba mu bàyyi loonu yàlla képp kuñ fi topp ba nga bàyyi loonu yàlla bàyyi loonu sunu diine ëllëg di nga bàyyi kooku dem ci yàlla ci ay loxoy kese képp koo fi topp lépp loo fi topp bàyyi yàlla di nga bàyyi kooku wala nga bàyyi loolu dem ci yàlla kon nanu tuub bàkkaar yépp nanu dellu ci borom bi tabaraka wa taala fa man lam yatub fiihi fa mataa yatub fa man lam yatub fi ramadan fa mataa yatub ku tuubul ci weeru koor kañ ngay tuub kañ kañ ngay tuubati te weeru koor nekk weeru tuub yow tuuboo ci weeru koor kañ ngay tuubati qaala allahu taala wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuun laallakum tuflixuun yéen jullit ñi tuub leen dellu ci yàlla tabaraka wa taala yéen ñëpp gis nga ayuha almuminuun yéen ñi gëm yàlla yëpp tuub leen dellu ci seen boroom ndax yàlla musal leen mbokk yi juróom-ñaareel bu nuy waajale weeru koor mooy al i'dad al jayyid li daawati ila allahi taala min xilaali hada sahr ñun ñoom nañ préparé waajal sunu bopp ci mboole moyen bu ñu am ci xam-xam ci sunu alal ci sunu doole ci sunu lépp pour nekk ay wootekat ci weeru koor noonu ñooñu yore seeni télé seeni rajo seeni théâtre kat seeni caaxaan kat di tasaare ak mbon ngalawaay yéen tamit am leen fulla pour tasaare ak mbaax pour tasaare ak mbaax ñee di tasaare mbon dañoo am fulla rek gëm ne mbon la ñu war a tas ñun tamit nañu am fulla ak jom ak ngor ne ñun dañoo war a tasaare mbaax loolu kese la foog ñu nekk ay wootekat ci weer wi wone taaru lislaam jàngal nit ñi lan mooy islaam wallahi alazim nit ñi bu ñu xamoon lislaam mooy lan kon danañ dund ci àdduna aljanna ëllëg àllaaxira bu nu dee dugg aljanna loolu mooy lislaam mooy mission bi nanu fexe ba nit ñi nekk ci diine ñu jàngal leen ko wan leen taar bi wan leen jaamu yàlla yi xoolal weeru koor bu ñëwee nit ñi da ngay gis ndeysaan léegi commencé nañ ko sax di togg ay ndogu taxaw ci tali yi di jox nit ñi ñuy naan jox nit ñi jox nit ñi waaw bu weeru koor jeexee ñu ne jaamu yàlla boobu jeex na ñooñu di def loolu dañoo war a xam ne loolu dafa war a continuer lu baax amoon nañ benn góor ca sunu jumaa ja bu noddee ba pare day téye micro bi daan ne lu baax du doy lu baax du doy lu baax du doy bu waxee loolu ba sonn mu ne ñëw leen waajal waxtu yu bala ñu leen a waajal waajal leen waxtu yu bala ñu leen a waajal waajal leen waxtu yu bala ñu leen a waajal ñëw leen julli bala ñu leen jullee pourtant ñett yi muy wax yëpp dëgg la waaj leen bala ñu leen a waajal ñëw leen julli bala ñu leen di jullee lu baax du doy ñett yëpp dëgg la waaye kan mooy xam ne lii dëgg la mooy am jullit bu am pas-pas ci yàlla tabaraka wa taala nañu waaj ñi am ci ñun ay téere yu ñu war a maye français arabe ay cassette CD ay carte mémoire ay clé yu ñu def ay waxtaan séddale ay téere alquran ku nekk ci ñun mën ngaa jënd ay juzu amma wala nga jënd juzu yaasin wala nga jënd ay kaamil nga tasaare ko ci jàkka yi nga may ko julit ñi ci ñun ñaata ci ñun tey ñoo mënul ay clé ay carte mémoire def ci ay conférence def ci ay xam-xam may ko nit ñi ñaata waaye ndeysaan bu weeru koor ñëwee ci la nit ñi di rakkaaju ci la dem géej di bëri ci la caaxaan di bëri da ngay gis ku romb jàkka ji ñuy tafsir mu utali géej boo ko ne foo jëm mu ne damay dàqi koor wax na dëgg wax na dëgg de ndax boo wooree ànd ak ay xale yu jigéen utali géej xam nga ne yow da ngay dàq koor wax nga dëgg moo tax yàlla tabaraka wa taala wax loo leen foofu dëgg juróom-ñetteel mbokk jullit yi ci nu ñuy waajale weeru koor mooy nag nu ubbi nag ak kayit gu bees sunu digganteeg sunu borom nastaqbilu ramadan bi fathi safha bayda mushriq ma allahi subhanahu wa taala bi tawbati sadiq nanu dëggal yàlla nanu génne li nekk ci nun sunu xol yi li ci nekk ak ñi ci nekk nañ leen génne dugal ci yàlla tabaraka wa taala nanu ubbi ay kayit yu bees yàlla mayaat nanu sens yàlla mayaat nanu sens pour lan ñu dellu siwaat ci moom ñu tuub dellu siwaat ubbi waat ay kayit yu bees yoo xamante ne kayit yu njëkk ya yépp danañ ko fàtte mbokk julit yi musibbe fulbe caggal yettude allah e julde e nelaaɗo men muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hutba men hannde wonno holno kebloltoɗen lewru kork mbiɗen beele ko ñaamɗeele ñaamde ñaamde ayiyat lewru kor ko wiye no ara waaji o e joom e joom suudu makko e sukaaɓe ɓe jooɗo eɓe waɗa calcule holko ɓe kumtoto e mburu walla biyes doore walla walla walla ko yarete ko ñaamete ko defete holko defeten sen mbaɗi balɗe tati tew mbaɗen balɗe tati liɗɗi mbaɗen balɗe tati macarona mbaɗen balɗe tati yaasa mbaɗen balɗe tati domoɗa a ko noon heblente lewru korka ñamde tan oya kanko holko heblonte lewru korka ɗanade ma jaranmo o yaaha o soodoya leeso e malla ɗaɗɗo o sooda ventilateur ɓuuɓɗo o ndaara nokku mo ngannduɗa dille kewata toon o waɗa toon branché hol mami wawa ɗanade ha ay goto tampinta lan ko noon heblerte lewru korka ko ni ala lewru korka heblente ko duwa duwaɗa allahu subhanahu wa taala yo allah hokke taweɗa lewru ndu sa tawama allah jaɓanma lewru korka heblente ko yetta allah kanko hokkuma a tawama est ce que e bandiraɓe ma est ce que e ɓiɓɓe ma e rewɓe ma e musidɓe ma hornoɓe rawane beele kamɓe fof hikka maɓe koor beele kamɓe kamɓe fof eɓen ɗo e sara ma won hene mabɓe eɓen to baamuule to holkoɓe padata toon koɓe kumti koɓe ñamata koɓe jarata holkoɓe padata toon loocol mburu koyngal gertogal dande gertogal ɗum ɓe padata toon ala holkoɓe padata toon duwa ndeke duwo ɗum woni goo ɗiɗi jetta allahu tabaraka wa taala kanko hokkuma a tawama tati beltoɗa il faut woppen so wiyama ɗum ɗo ko dewel allah eɗen tikka eɗen ñirɓino eɗen ñirɓina jeese men ha kala jiiɗo en anda oɗo weltaki so lewru korka ari yiya julɓe ɓe kala hen goto ñirɓinto nawa yeeso mum to a suusatani salmindemo so holko tagi ko korɗo tan ya ahi korka wona lepte seyduna omar o yi waaji gooto o hoori omo ñirɓini hay yeeso ngo hay gooto suusamo ƴeewde omar wimo ko woni o wi komi koorɗo omar wimo korka wona lepte korka wona lepte il faut anden ɗum neɗɗo so hoori haɗatamo lootaade haɗatamo soccaade haɗatamo momaade haɗatamo wadde parfum e comci makko ala korka woni jagga hoorema ñaamde e yarde sabu rewde allah e kala mbel wetto mo fittanduma waɗanno ko ɗum ɗo woni korka jagga goppa ñaamde e yarde e belaɗe fittandu e waktu oɗo ha oɗo waktu pour rewde allah tabaraka wa taala ko ɗum woni dewal allah yo allah hokku en tawede allahuma ihfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tuazibna ba'da al maut birahmatika ya arhamar rahimin allahuma ya hadi ihdina sirata al mustaqim sirata alladhina an'amta alaihim من النبيين والصديقين والصحداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله